dina am ay changement mais liñ ci jot a xam wala sax li nga xam ne nii loolu lañ ci mën a jàpp mooy que ne fu mu nekk nii euh, ba léegi euh, ndaw yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi génn dëkk bi di euh, dem pour uti leneen loo xamante ne xëy na peut-être lool la yaakaar ne moo gën muy situation boo xamante ne nii chaque jour rek dañ ciy wax mais man damaa mujjee dex sax ba dama mujjee man ba fu mu nekk nii xamatuma sax ci fan lay taxaw ndaxte euh, loo wax rek di nga bàyyi la ca la la la la ca des ci euh, lu tolloog cent cinquante ñoo ñoo nekk entre euh, Asamaké Arlit Agadez ak Niger presque trois mois donc mooy ñi nga xam ne ni xëy na peut-être ñoom ñoo jël yoonu suuf si pour mën a dem li nga xam ne nii xëy na peut-être mooy pour euh, yeggali fi ñu fi ñu fi ñu fi ñu bëgg a yegg mais euh, situation bi fu mu nekk nii expliquer ko dina complexe dina difficile mais euh, ak nguur xëy na peut-être bi fi nekkoon mën nañoo wax ne joué na ci rôle bu ama ama am solo parce que lii bu fekkee ñoom depuis trois mois ñi nga fa mooy que ne bi ñuy dem fekk nguur bi fi nekkoon mi ngi fi woon. donc du nguur bu bees bi du ci nguur bu bees bi lañ lañ lañ lañ lañ lañ demee te gis nañu aussi tamit situation bi nga xam ne moom la jeunes sénégalais yi doon dund ci euh, li nga xam ne ni mooy euh, njeexitalu 2023 entre 2000 ba 2024 euh, yi nga xam ne nii ndaw yi dund nañ ko ak aussi tamit ñi nga xam ne jot nañoo xaddi ba sax yaakaar ne jóge fi dem seen yoon mooy li nga xam ne mooy li gën mais nag ñi ngi interpeller euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi par rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci ñoom ñooy nekk ay migrants ba pare di can ci yenn dëkk yi relation yi nga xam ne moom la ñu am ak dëkk yooyu war nañoo war a mën a def de sorte à ce que suñuy ambassadeur wala consul yi nga xam ne moom la ñuy am ci dëkk yooyu di mën di bàyyiloo xel ñi nga xam ne ñoom ñooy dugg ci dëkk yooyu parce que malheureusement dañ fay dugg am problème boo xamante ne nii dafay am am ay jafe-jafe yu metti kenn warul dugg ci dëkku jàmbur dëkk boo xamante ne yow leer na leen nii mu ngi entretenir ay relation ak yow sa dëkk bi nga jóge ñu la fay maltraité wala ñu la fay teg loo xamante ne kenn li yàlla xam doy na gis nga ñoom ñii di jaar ci désert bi <coughs> euh, maa ngi jégalu ñi ñi ñi ci dul am chance dañ leen fay dañ leen fay bàyyi di leen xiifal duñu lekk duñu naan ñi nga xam ne ñoom ñoo leen autorité yi nga xam ne ñoom lañ fay romb duñ leen sax lijjanti dañ leen di jël daal ñoom ñëpp dajale leen ci ay oto yóbbu leen presque ba ci désert bi sànni leen fa muy nag traitement yoo xamante ne nii c'est des traitements inhumains te pourtant dëkk yi nga xam ne nii ñoom yenn ci dëkk ci dëkk yi dañoo signé ay yoo xamante ne nii mooy permettre à ce que képp koo xamante ne da nga jógee dëkku jàmbur da nga jógee sa dëkk ñëw ci sa ñëw ci dëkku jàmbur ñu jàppale la ba. soit ñu def la ñu def pour que nga mën a delluwaat sa dëkk wala au moins la nga fay xaarandi ñu teg la ci condition yoo xamante ne même bu fekkee ne du ay condition yoo xamante ne condition yu extraordinaire la sax mais ñu ñu ñu teg la ci ay condition yoo xamante ne mooy condition dignité humaine mooy nit li mu soxla au moins te loolu nag pour man euh, kii di ministre des affaires étrangères bi nga xam ne nii mooy Yacine Fall euh, nekk ci ci ci ci ci ci ci ci ci aux commandes jamono gi war naa bàyyiloo xel loolu ñi nga xam ne nii ñoom ñooy euh, dëkk yi nga xam ne moom la suñ moom la yenn ndaw yi di dem te du Sénégal kese du Sénégal du ay sénégalais kese la ñuy doon dañuy doon ay sénégalais ay ivoiriens bari nañu ay nationalité yoo xamante ni dañuy dem ci yenn dëkk yi te la plus plupart du temps mooy dëkk yi nga xam ne moo nekk ci Sahel bi à savoir ay Algérie euh, Niger ak yu demee noonu euh, nekk ci dañ leen di jël buub leen ñoom ñëpp yóbbu leen ci désert bi bàyyi leen fa à laisser à eux-mêmes duñ leen jox ñu lekk duñu leen jox ñu naan et yaakaar naa fu nekk yaakaar naa ne ministre des affaires étrangères war naa mën a def war naa mën a def taxaw seetlu xool coopération bi nga xam ne nii moom la ñu am ak dëkk yooyu naka la ñuy def pour que ñuy mën di protéger ñi nga xam ne nii ñoom ñooy migrants yi nga xam ne ñoom ñooy jàll ci dëkk yooyu parce que ñoom ak loo leen a loo leen mën a wax dañoo perte espoir rek ci seen dëkk waaye ni ci ëpp duñu ay nit yu bon ñu ci ëpp duñu ay bandi duñu ay sàcc duñu ay délinquant ay nit lañ rek yoo xamante ne dañoo am yaakaar ci yeneen dëkk te malheureusement buñ euh, yaakaar googu xëy na peut-être mu tas mais nag taxut ñu war leen a teg ay métit yoo xamante ne ni euh, du méngoo ak li nga xam ne moom la moom la ñu signé ci ay charte ak i convention ngir mën a aar doomu aadama ci mbooleem fu mu mën a nekk ci moom ci ci ci kaw suuf. ci situation yu critique bi mais déjà